jërëjëf mbokk internet yi bu na leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ku ciy àndal Serigne Ngobe sekk Saalum Saalum bi Serigne Ngobe sekk doomu Saalum bi ki nga xam ne lu mu am lu ne Saalum moo ko gënal te nag dinañ waxtaanee mbiru marche bi gaañi waa osmaan sonk Sonko dañu woote marche une très grande mobilisation suba waaye li ci gën a yéeme mooy suba le 17 ci la ñu àttee ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee ak Serigne Ngobe Seck waaye waxtaanee xam sëriñ Ngobe bu ñu lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñu lay sant sur bi Pro Média ak Bour Gueweul alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilah alhamdulilahi haqa hamdi alhamdulilahi hamdan yuwaafi ni'mahu wa yukaafi masido mhm. wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad sallallahu alayhi wa mhm. wa ala alihi wa sahbi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di ñaan yàlla képp ku ko déglu rek yàlla na nga si jëlee njëriñ si saayir ak si lépp loo xam ne xam-xam la nga dégg ko wala nga xalaat ko boo ma ko laajee la ma sa xam danaa la ca tontu lu ma si xamul ma gëstu juwaat ko lépp loo xam ne si réew mi la loo ma si laaj li ma si xam te man koo wax ma wax ko lu ma si xam te mënuma koo wax ma noppi bisimilah. sëriñ Yobe marché bi suba la projet Ousmane Sonko suba la. alhamdulilah di wax rek naa fu ñu jàppoon démb ak bërki démb mu dëgëroon nen fa gën a jàpp. Mm-hmm. ndax doomu aadama boo gëmee mbir da nga koy topp ba jeex takk. bu la si dara xàddiloo jamono ji ñu toll daa bëri lool ñoo xam ne dañuy génn naan Sonko du bokk Sonko du def nii Sonko du def naa Sonko tey la gën a bokk si réew mi hmm. tey la gën a doon doomi réew mi tey leen ko gën a jaay doole liñ ko doon xeexal démb ak bërki démb nin génn gën koo wane gën a xam ne kii dañ koy jaay doole ñëpp naqarlu ko te incha allahu rabbi day xam ndam waaye sëñ bi marché yi da koy woot rek te kenn du génn incha allah luñ man mooy woote nit ku nekk li nga man mooy wax ñi daan wax bërki démb ak démb bët bu set ñëpp na di wane ne Sonko la bu ñu ko wane si wax si si néeg yi tëdd ndax ku ñuy xeex ak dafa nekk koo xam ne nii moom maanaam maanaam lim boole si xolam moo bëri maanaam dafa nekk koo xam ne du jéggale si benn fànn te Ousmane Sonko maanaam ñoom bu ñu sañoon bokkatul si koo xam ne bakkanam mu ngi dund. mais sëñ bi est-ce ngeen wut plan B ngeen noppal seen bopp. duñ ko def ndax lu tax duñ ko def mooy suñ ko defee lay lañ ñuy gën a mën a xeex. mais Guy Marius sañaa plan B la. ma ne loolu daal bu ñu sa yeggee ñi soog waaye instant bi Sonko mooy candidat tey ak suba ak gannaaw suba. yaa nga ca la nga waxoon dina génn dana bokk. dana génn dana bokk te day gañe ah sëñ Gobe loolu foo ko teg. day génn day bokk te day gañe te képp koo xam ne bëgg nga Sonko te Sonko jaral la li ngay wax nekk si yow bu la di satee wa wane ko. amul buñ caaxaanee ba nga xam ne nii Sonko gars yi liñ bëgg la di set am neen ko. li ma ci gis bu nit ñi génn day metti de. bu nit ñi génn. lu ma ci gis buñ génnut wane ko day metti de. ah mais est-ce que sëñ Ngobe nit ñi dinañ génn tamit. waaw en tout cas daal moom képp ku gëm Sonko xamal ne tey la gën a baax wane ko bul fi nekk naan ah mënatu a dem ak nangam ak nangam gëm ko te jàpp man maa ko wax su demee ba jeex na ngeen soog a ñëw ne sëñ Ngobe moo ko waxoon. ah mën de sëñ Ngobe engagement bii nga jël tamit ci Ousmane Sonko man jaaxal na yow doo politicien. yow dëkkoo Ndakaaru wala ci réew mi rek nga dëkk moo tax wala yow teew commune ba nga dëkk lépp baax na doomu réew mi boo ko donee bëgg réew mi avancé lépp liy doxal réew mi da nga siy ne te billaahi wallaahi watallaahi Sonko moo mën a sensé réew mi loolu jarul sa xel ñaar Sonko moo mën a sensé réew mi fekk ma kee ngee teg bu neen la réew mi dana avancé fii waxuñ la yow patriote yi jël nañ la hors antenne déedéet Ngobe ñamal nañ la kanaa xamoo ne yow ma wax la leneen loo xam ne mu si réew mi Ngobe suñu émission bi patriote yi woo nañ nañ la pour nga téye pour nga jàpp ci xeex bi déedéet man moom yàlla dogal na sax maanaam ku bonk si Sonko sax di ma ñaan loo bëriwut hmm. ba di ma jox xaalis nangam xam nga yow ñëw nga fii bu yàggul na ma mbëru patriote yi amaa Balde nangam waaw te pourtant am na lu xew si suuf loo xam ne bëggu moon la ko wax lu xew suuf yow kanaa xamoo Ama Balde si giiru dundam dootul wax si Sonko ndax la boo gëstoo dañ la wax lan leen ko jox ba dootul wax kon danga nga jàpp ni jël nañ ko or antenne neexal ko yàgg na yàgg na ah yàgg na pare na ci Sonko waaye yow. tekki na bracelet ba. yow boo doxatee ba gis Ama Baldé takk bracelet wala mii dox di wax si Sonko di xeexal Sonko la di sa te ngay ñëw te moo doon bëri patriote yi patriote yi jàppale neen ko la di seen mu ngi ñëw xoolaanal. li ma lay wax du ñu góobee. man man man du ma la waxantu man damaa koo xam ne lu ma lay wax lu ne da nga koy teg mu doon téere nga di ko liir di xam. mais Siteu tamit mbëru patriote la te lay waaw ñu ngi koy ñaanal ndam de. waaw ñu ngi koy ñaanal ndam. Siteu maanaam sax sans mbëru patriote Siteu san lii di xew moom da daan toog di xeexal goxam moom moom noonu la meloon. Siteu mhm. dafa nekkoon koo xam ne nii moom fu mu nekk day bëgg mu avancer maanaam du xoolaan nit nekk ci wetam di di yaafus. Siteu mhm. moo mel noonu. Mhm. man man yàlla dogal na dëkk naa jàmm gëm xam naa Siteu. xam naa tim euh, booy si yi. kon yow da koy ñaanal nii wala doo ñaan ci làmb man bëgguma kii ñaanal mbër képp kii mbër bul ma woo bëggumaa ñaanal mbër doo ñaan ci mbër doo ñaan ci pari foot euh, déedéet du ma ñaan ci mbër du ma ñaan si football du ma seet si làmb duma seet si pari foot lu ma yàlla wan nag ma xam ne lii moom yàlla dogal na maa ngi jaamu yàlla mu xamal ma ko waaye soxlu ma ciy ñaan waaye soxlaw ma ci ñaan loolu ñamali la woon mag sëñ Ngobé nag tey dama bëgg nag ñu waxtaanee nag xam-xam nag dugg may laaj ngoobe di attaqué di dóor ay crochet sa ngoobe kii nee na ma doomam dañ ko sànni korte fan yii yëpp ba ñu jaaxle fu ne dem nañ fa yaram waa ngay néewi <coughs> biir baa ngay néewi tànk yaa ngay néewi est-ce que ku ñu sànni korte alquran wala sëriñ ngoobe tey buñ ko indiloon ku ñu sànni korte mun na ko dindi ci ni mu gën a gaawee waa bépp xeetu lëggéey ak lu mu doy waar ak lu mu ñàng-ñàng-ñàng boo dikkee man bu ma xas yi digganteeg yow ba commencé koo lëggéey ñetti fan mu tàqali kook yow ñetti fan ñetti fan moom dana toj ba nga yëg ne toj na nga soog a continuer mbir ya ba juróom-ñaari fan ya mat mhm. waaye ñetti fan boo yëgee ne li neexoon si yow wàññeeku jarul nga koy continuer xamal ne la ngoobee jox baaxut mhm. kortu nag dafa nekk mbir moo xam ne ñu bëri dañ koy wax te xamuñ ko mhm. xam nga kortu nit man leen laa man leen di sànni kortu nit sax moom mooy dal la jamono ju ñuy nekk saalum dëgg pël yi daan sànnante kortu da daan seetlu ñi naan dañoo sànni kortu da kortu bu dalee si garab sax genn xaaju garab gi moo tax ngay gis nit kort mu dox ba dëgg kort sax tànk bi niiwi loolu nag bu ko amee kanaa xamoo ne am na saafara yoo xam ne boo ko raayee si kortu fu mu nekk day wàcc ba mel ni tooki comme nu luggkatu jaan di manqué da nga di ko wàccee man liggéey bu mu mën a doon boo ma gisee wala gisoo ma ma yëkkati li ma lay jox jox la ko dog bi ma war a def ma def ko lu mu rëy rëy rëy ñetti fan nga tàqali koog moom waaye ci kaw seet moom moom nit moom du ñëw rek ma na la lii laa lay defal ndax man yàlla dimbale na ma buur man su ma caaxaanu laa wax soo ma woowee na ma sëñ bi nanga def lépp lu ma la bëgg wax ma neexee wax la nit ku nuyu rek sëñ ngóobe soo ne ma sëñ ngóobe na nga ma ne la manque fi lu ma la bëgg su ma neexee wax la ko man mbiram gëstoog yii moom dama see sonnatut hmm. li ma bëgg a wax lu ma bëggut wax coow li lu muy bëri bëri xat ak nangam ñi ngi def émission déggoo ko ne la sëñ Ngóobe dama la seetlu non dëgg la moom loolu moom dëgg la loolu man su amoon dama koy wax ndax yow kenn moom sëñ Ngóobe tey nee la baat la ak tontu kii jigéen ñi nee na naa laaj ñaar yi jigéen ji dem ba commencé âgé mun te dégg alxayri ndax rab bu ko topp wala ab àndoo jigéen ji nee na mu ngi sëy nee na bu burgeel nee ma sëñ goobe fukki ate ngi maa ngi sëy saa yu ma ëmbee ba yaakaar ko ëmb ba tas maanaam ëmb ba tuuru mhm. ñii faf mënuñoo am doom waaw loolu nag dafa am ñaari fànn bu fekkee jigéen joo xam ne dafa taa am doom wala jigéen joo xam ne dafa dafa toog bay aase te manto am jëkkër maanaam loolu ak jigéen ju mën a doon bu fekkee ne yenn xeetu rab yi ñoo la koy def maanaam faru rab yeeg yooyu mm-hmm. ak faru rab bi lu mu mën a doon bu dee dalay sonnal nii rek soo ñëwee moom juróom-ñaari fan dootoo dégg faru rab te da nga gis góor ñu bari topp la te ku la neex ngay tànn waaye jigéen tamit suñ waaye nag bu fekkee ne koo xam ne dafa am rabu cosaan woo xam ne moo ko sonal di ko yàqal yenn yàqali mm. yenn xeetu rab yu mag yi bul ma woo duma ko faj na naa ko cosaan ñu faj waaw na dem seeni cosaan ñi xam yuñ ko defal ndax rabu cosaan duñ ko faj dañ koy dëppaleeg borom mm-hmm. te man dafa am xeeti rabi cosaan yoo xam ne duma dugg sa famille ba Mm. rabi cosaan ku koy faj rek dangay dugg sa famille ba xam loo def te man duma dugg si yenn xeeti rabi cosaan yi mm. dañ ma koy tere te ñu ma tere duma ko laal mm. bu dee nit koo xam ne nag dafa të am doom dafa am ñetti fànn benn bi mooy nit ki mën naa am jàngoro si biiram joo xam ne da nga ko jox dara mu naan ko mu dëñ mm-hmm. wala nit ki am feebar boo xam ne force mu dem hôpital mu dëñ wala nit ki si boppam am raw woo xam ne nii da koy yàqal ba lu mu ëmb mu tuuru mhm. bu dee rawaan la mën naa laa jox loo xam ne boo ko jëfandikoo rab bi dootul la laal rab bu mu mën doon non bu dee rab yenn xeetu rab yi moom moom du ko laal lu mën a xew daal boo ñëwee bu ma ko seetee lu ma siy def danaa la ko wax mhm. waaye bu ma ko seetee mi yenn xeetu rab yi su ma ne la du ko faj bul bamtu xamal ne mënu ma ko mhm. te bul sëri duma ko def man lu ma ne la du ko def boo si incité yaay sonnal sa bopp waaye du ko def même bu ñu ay 10 millions ay 15 millions buur xaalis du ñaan man defar nit ki mu ñëw di ma indil moo ma gënal nga di ma fay léegi léegi. defal nit ki te du la jox dara. xam nga man ba résultat am mu soo ko fay. xam nga man man ku ma defar te ñëwaatoo danaa rëq sa ndigg ak koo man a doon. ak ku mën a doon. yow buur kanaa xamoo bu la neexee nga dem complot fukki sëriñ na leen songu leen sëñ góobe buñ ma songee faatu. man kay du ma dugg ci loolu man nga dima ci bopp. waaw dama la bëgg a xamal rek. loolu moom duma ci dugg waa léegi nag ku ma lëggéeyal ba sa mbir dox man ku mu neex nga ñëw ma lëggéeyal la waaye su ma la lëggéeyalee ba nga doxle ngay dof dof lu dootoo ko dolli da nga delsi te boo ma waroon a jox cent mille boo dikkee boo ma joxut cinq cent mille du ma ko laal te feeg joxoo ma sëriñ boo dem mu ne la dalay dimbale day fen man rek a ko mën a dindi sëñ Gobe ñi ngay samp temps yi temps yi daal samp kilifa yi daal nga jël léegi daal samp kilifa rek waaw maanaam euh, dama nekk loo xam ne dama newoon la yor naa lu bees yor lu gën a wér yor lu gën a gaaw ak lu gën a gaaw waaw noonu nga ma ko waxee jooni maanaam nga may woo tey suba mu dox mm-hmm. waaw léegi nag loolu noonu dafa nekk loo xam ne dama si boole waale ay xeeti samp yoo xam ne ba abadan su ma xasee samp bi nit ba pare mm-hmm. maanaam yërëm naa koo xam ne mooy ñëw na dalay sempi da koy samp da ngay samp nit ki boole boole ko ñàkk ko man maanaam koo dégg ne ngóobee ko ñaanal nga dégg ne mu ngi si ay tolof tolof yoo xam ne làmmaña la ko teg wala loxo doomu aadama jaratul ngay ñëw na ma ngóobee kaay wax man ku ma xasamp mucc nga. Mm. ak ku mën a doon ku la laal yàqu. sëñ ngóobee ana la nga daan dindee cat. man moom cat moom. moom ak yaram mu yàqu ki umu dem ndeysaan. man daal moom am ñoom lañ daan def ba mu yàgg ñu wàcc ba ci suuf loolu ñu am dara. man ñii ñii jabara leen ko def ñii dañoo toxu ci kër gu bees. ñuy cata leen ko def ñu dañu leen liggéey amoon ba mu yàgg ba ñëpp di ko coow xëy nit ki ab sarax sax rek nga di ko yéene buur képp koo dégg mu ne da daan am amam doxatut wala xaalisam du toog cata ko sonal lu mu yaakaar mu tas na ko hoowal sëñ góobee mu mosal la si cangat yi boo boo boo bu sa yaram fiixee nga fay ko maanaam cangatu cent ba maanaam déedéet cangatu cent bi xam nga day sa mbir bu doxee bu bu doxatut dama lay xam lu ma lay xapp ba loolu toj ma jox la cent franc muy dox cent franc bi moom laal léegi am léegi la booba cangalu cent bi de man bi may waaj a màggal ñaanoon naa la ci ne la avant màggalu yoruma waaye sama màggalu ren alhamdulilahi ak hamdihi laa ko yàq neex na waaw maanaam cangal la goo xam ne sunguf la boo xam ne ah. da koy def si ndox ba mu fuur ni mu gën a fuuree sa alal di gën di mais nga ba loolu sunguf lan la sunguf boobu moom manumaa wax lu ma ko boole yi manuma ko Ah, loolu rek laa ci li ma dox ba daj ba wuti ko na keneen dox wuti ko. mais maa ngi lay ñaan fan yëpp pour nga coppalaat ma ci. lu demee du loolu xam nga man nag damaa ko wax a ñaan. Euh, mooy su ma la mosalee nga ne neex na. Ah, man sooy ñëwaat da nga sonn pour am. billaahi neex na neex na sa paral man moom ku ma mosal nga ne neex na. booy ñëwaat moom danaa la wax ne la comme neex na. defal dara ma def dara mais kon suñu boobu ni ngay amee xaalis man moo ma yëpp man <laughs> jamono boobu daan naa koy di tourné lu mat. juróom-ñetti émission par bés wala juróom-ñaar. loolu la nag. macha allah ji nga ji nga sunguf. dëgg la ma compal la ci ma compal la ci benn mm-hmm. benn mbir rek. Mm-hmm. su ni nii tey boo jëloon benn sump gu sax si xorondom. Mm-hmm. Euh, wusu sóor bu sax si janj. janj bu gudd. jànj nga ngeeraan bu sax si kaw janj. di ko boole di wër garab yi mu war a boole nga boole ko dëbb ko. ba nooy boo ñëwee xale bu xamul dara moo la koy dëbbal nga tiim ko jat si li nga si war a jat. koo ko compal na mu ta baax du fuur koo ko compal na mu ta baax moom bu demee du fuur mm. waaye koo ko compal mu baax bu demee buy yi day fuur bu doon suwo bi daa def lal taalooyu ndox force suwo bi day fees ak fuurit mm. nga di raayu noonu nag saa boo xëyee rek fuura la raayu soo raayoo ba sa yaram wow te gisoo ne xaalis a ngi jógee barab sàngam na ma ñëw woo ma na ma sëñ bi cangat gi laal naa ko waaye non man ñam naa ko te dama koo sakkanal ba sonn wax dëgg yàlla waaye këñ goobee dama lay ñaan rek yow sama xarit nga bu may ñibbi tey jii man sa géwél laa nga coppal ma ci aslëf rek gars yi cangatu saafara bi du ay caaxaan moom daal buur li ma man maa leen ko wax ku ko ñam gisoo bul woo sëñ bi man woo ma man directement sama numéro xam ngeen ko li ma mën a xam daal mooy man daal ku sa yaram yàqu wala catak yooyu soo ñëwee dinaa la defal cangat goo xam ne ñetti fan lépp loo xam ne gàllankoor loon sa yaram day toj dinaa tourné may la loo xam ne dalay may bayra xaalis jigéen ak lu mën a doon di ko am waaye su yëpp di neex gestu sëñ bi boo ko gestu da ko soxlawaat te doo ko gaaw a am loolu daal laa mën a gaaraan sëñ bi xanaa da nga noob yu maanaam yàllaa def ma judduwaale ko maanaam damaa mm. juddu ne si daara ji bëgg ko te di ko gëstu mm. turne waat dem si góor gi sama baay mu dolli ma ma mm. tourné waat dugg si àll bi ñu dolli ma -hmm. buur man maanaam li ngay dégg si ngóobe ne maanaam ngóobe comme noobal dootoo dootoo dootoo yëngatu mukk loolu nag maanaam maanaam day gën di dolleeku waaye du dellu gannaaw ndax bët bu seen maa ngi liggéey kurus te sama kurus day gën di tàng mm-hmm. te man noob lu ëpp doole su ma tegee xale wa xànjeer ji ba tiim kurus gi moom kooku moom mbindeef moo xam ne mënuma koo jàpp si noob amul même bu dee jabari nasaraan ak jëkkëri nasaraan lu man a doon su ma la liggéeyalee nga yëngatu loolu man mantu nekk buur koo xam ne danaa ko noobal nii maanaam mu ni ma noob gii baaxul wala nangam ndax man lum néew néew mën naa laa kontal fukki noom ak juróom yoo xam ne dama koy liggéey te benn bu ma si jaar am ndam su ma laalee bii doxul rek ma dugg sa bële te man ku ma noobal ba bàyyi la diggante ba ku ko yàq faatu hmm? billaahi koo dégg ne ngóobe ñagal na diggante ba jéem faa dugg nga xool dootoo ma dékk micro sëñ ngóobe man dama gis ne yor nga mbir yu gaaw mais ba tey danga nga fonk tur yàlla waaw maanaam moo ma ko may ndax ba ma juddoo xàmmee dara damaa fekk sama bàyyi doon nitu kurus di lëggéey kurus di dem si jàkk ja ñëw bay jiite jàkk ja man su ma juddoo bëgg def ne mankat ab saay-saay laa naa taxaw fii damay sonna sama bopp ndax mm-hmm. man wax naa la ba tey ne man fii ma nekk du sama barab boo ma fekkee Saalum ngay xam man may kan da ngay toog paa bi toog mm-hmm. loolu yàlla dogal na ko moo tax man turu yàlla caaxaaneewu ma ko te nag man samay turu yàlla sax daanaka lu muy bëri bëri man jalaal rek mooy sama liggéey daanaka. ismu jalaal moo tax ma tàng jër waaw moom kay dama seen noq di di di di kii su ma neexee ma ñoddi si mu ñëw su ma neexee ma dóor si mu daam siis mu jalaal lu ma si neex jalaal noonu la mel jalaal kay moom dellu xëy di rendi rek moom waaye waaye waaye da xam secret bi lim bi ah loo gis lu ne dafa am lim waaye jalaal mooy benn xeetu liggéey boo xam ne képp ku koy lëggéey te xam yoon wa di sa jaar kanaa nga mën kaa boolee turuwum dëppook yu mel nii eh, yaa man maay fàtte sax tur bi. waaw li ma jaaxal da nga ni foog may xëy di ren di bu dee da ngay liggéeyal ci alal. Euh, nga koy booleeg yaa xay suñ xabidun mu tey suñ kabirun mhm. xam nga ñoom ñaan ñoo dëppoo ahamun saqakun xàllahun yësun yaa xay suñ xabidun mu tey suñ kabirun mhm. ñoom ñëpp ñeenti kii yooyu la mhm. da ngay tuur deret jalaal tuur deret rek la bëgg ala kulli xaal jaalaal moom daa tàng boo du tuur deret sa dereti bopp lay jël faw nga dagg boo gisee da ngay gis sëriñ boo xam ne day toog rek dara dal ko mu dagg dagg yu metti deret ji di sottee ko foo ko laajtee dafa naan la damaa liggéey jalaal ju bari te tuuruma deret hmm. moom noonu la mel faa ngay tuur deret mais xajul ci benn aajo jalaal maanaam aajo boo xam ne mu ngi ñëw nga toog liggéeyal ko jalaal ba guddi gi jeex xëy deret te aajo ba fajul gisuma ko boo ko liggéeyee lu mat juróom fan fexe reen di nag ismu man lu ma si lu ma si mantu def kanaa xamoo ne noob gii ngay wax juróom juróom-ñaari ismu jalaal yoo xam ne benn saat la ñuy bokk nga boole ko tëcc ko si poti meew sànni ko si teen bu të dikk reyal ko benn ganaar diggante boobu moom di suma lu ko mën a teree neex mais suñ ko bee lu tax doo waxtaane jaaru waaw dafa nekk loo xam ne maanaam dama koy mosal nit mu dem xam ko soog a ñëw na ma sëñ bi dañ ma booleeg yow si jaaru ndax man hmm. sama jaaro nekkul loo xam ne damay toog di publicité ndax ku mu mos rek day ñëwaat sekkere noonu la lëggéey da ngay mosal nit mu dem indi keneen. Mm, mu dem indi keneen. man jaaru maa si yor loo xam ne su ma ko lëggéeyee juróom-ñaari fan nàndal ko ba màndi jox la ko nga takk ko boo boo ko takkee njaalo boo boo paree dootoo ko gis day réer. Mm, sa jaaru kenn du ko takk di mooy. déedéet boo ko takkee moom njaalo booy pare maanaam boo ko gisee ni sa loxo seeboo nga bàyyi xel doo ko yeewaale day gër rek doo doo xam foo fu mu jaar wala bis boo ko tekkee teg ko mu dem yoonam. te boo ñëwee laajaan ma ko man la mu ngi nii. waa suñu góobee damay wax ñaar. te jaaro ku ma jox jaaro. Mhm. waxuma la man nekkuma fi naan la nga takk ko ren bi da déwén nga takk ko si weer wi weer wi dee gisoo ne yaa ngi yokk sa bayraa ngi yokk nit ñaa ngi lay jublu tekki ko ñëw ma jox la ma jox la sa xaalis. ku ne dem. nga dem sa yoon ma dem. suñu góobee ñaar ñii laay tëjee sama émission kii borom barke la boo xam ne dafa bëgg sëñ góobee teel ko rek ay mbiram maanaam milliardaire boo xam ne. dafa bëgg sën Ngobe teel ko ay mbiram maanaam teel ko ay tànkam ak koo xam ne mu nga bitim réew yor fa business ak ay affaire am bëgg sëñ Ngobe teel ko ay tànkam ñooñu nooy jëflanteeg ñoom ñaar yëpp benn la maanaam suñ commencé maanaam boo ñëwee na ma man kat wax dëgg yàlla yàllaa ngi may suturaal maa ngi xam maa ngi doxle waaye gis naa ne ñi may xeex bëri na donte jekkooguñ ma waaye danga damaa bëgg maanaam nag ma ñàkk mm-hmm. ba nga xam ne kenn dootul man si man dara donte bëgguma sax ku ma laal faatu waaye nañ nag ma ñag rek ba kenn dootul man mhm. dinaa la defal loo xam ne maanaam bu la neexee sax yow bu dee doo takkkat sax bàyyee ma sa bopp bu fekkee man nga maa dimbale sangul ma ñetti fan lu des ma lëggéey ko sama kurus rek baax na dee na nga toog ma toog nga toog ma toog bis boo déggee maanaam bu la neexee nga toog ñetti weer bul ma fay dara soo toogee ñetti weer yëgatoo sa yaram dara gisatoo benn jafe-jafe nga soog a nag ñëw si ngóobe na ko teraangaa ngi nii ku ne bitim réew jaaxle wala xam fi projet si Sénégal sax say mbokk di ko saax-saaxee nga bëgg man ma ñagal la say mbir maanaam yàq sa alal ñi lay yàq sa alal di yàq mm-hmm. di la di la di yooyu maanaam bu la neexee ñëwal na ma sëñ bi man kat sama mbir nangam wala nga ñëw bàyyi ma sa bopp na ma seetal ma seet ba pare wax la lu may def ndax man su ma seetee xamul looy nëbbuta du génn mais mais su nga bi yow da fonk seet trop waaw ndax dafa nekk mbir moo xam ne su ma dikkee rek euh, néeg bi xaw ma fan mooy bunt ba ma bëgg mbëkk benn ma gaaño wala ma dal si lu naka su dul. waaw waaw noonu la alxuraan waxee de waatul bu yooti min jaaree leen mm-hmm. néegi sa bunt ba mm-hmm. kon nag man ku ñëw ku ne dama lay seetal ba lan mooy sa mbir seet moom yàlla dogal na bu la neexee bul yor dara ñëwal rek na ma sëñ bi seet laa bëgg ma wax li ma waaw man moom mën naa di bañ a guddal ak yooyu du la wax naan la sa mag ju lay lëggee sa rakk jeeg yooyu yooyu moom amuma jotam kii dafa xees kii dafa ñuul déedéet man daal moom li wér lépp lii sa mbir danaa la ko wax waaye nit koo mën a doon ak loo mën a yor bëgg ma ñag la soo ñëwee ñëwal toog soo ñëwee ñëwal toog mu ngi noonu li ñu cërale woon ci waxtu jeex na di góor yàlla suma xarit Serigne Ngobe Seck wax dëgg yàlla bokk Serigne si nga xam ne man buur ñeme naa leen ndax lu toll wax na dëgg ci ñetti at ngi ñu nga am jotaay yu mel nii di ay jotaayu xam-xam waaye wax dëgg yàlla nit jëlagul téléphone am ne ma buur Serigne Ngobe woo naa ko jotuma ko dama ko dugal Ria wala Western Union la mu waxante woon ak man defu ko di jàmbaar loolu nag wax dëgg yàlla di ñaan ko yàlla Serigne Ngobe looy tàggoo. bu fi bu fi woote seen marché bi de. di sant yàlla bu baax <laughs> di ñaan yàlla yàlla def si réew mi jàmm. te may Ousmane Sonko jàmm te képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga bëgg Sonko te gëm ko te wóolu ko. Hmm. buñ ne neen dem dimbale ji Sonko waneel sa gëm-gëm xam na loo xam ne du xut Sonko nga koy defal sa réew nga koy defal. Hmm. Sonko li ma benn euh, euh, waaju dëkk Angleterre wax sànq na ma man li ma lay fàtteel laaj mooy. Sonko njëriñ la pour àdduna bi waxuma pour Sénégal waaye pour adduna bi hmm. yéen naka ngeen def moom ma ne ko di yokk ñaan te xam ne dana jëriñ dana dana am li mu bëgg hmm. ku leen taxaw naan leen Sonko du dem fii wala du dem faa da leen di nax jàpp leen si Sonko mu dëgër te gëm ko te xam ne Sénégal kenn mënu koo defar ku dul moom te soxlawoon si ñaar dërëm buñ fi joxee keneen sàcc bu ñëwee sàcc ba mu doylu na an sama moromu sàcc ñu ne ko mu ngi nii ñu ne kaay Eh, ma dénk la lii man damay dem boobaa sàcc baa toogaat wala wala eh, ku baax a toogaat sàcc baa kon nag kon nag xam leen fu ngeen di teg seen tànk ñi ngi sant yàlla bu baax jëri ngeen jëf